subis ba xoolal rek dama la am tool damaa liggéey xale bu ndaw laa damaa liggéey. Pape Sarr lii lii dina ma daan lii dina ma daan. liggéeyal de xaw ma man maa ngi ngir Fallaye. yow man ña may jàppante ni ngir Fallaye yow yow yow yow. yow yow yow laa nga am baax yow. yow man ci lii ngir amul nit ku toll nii. booy xoolal yaram. bu eh, mu sumu yaramu ne. ah xoolal sa bi rek. waaw xool leen dagg ba xam benn la. kaay ma xool. ngeen subi tànk yi. Eh, eh, ah, ah bi bu sumee ko ay ma ay ku sumee ko rek sumee ko barke Serigne Bamba ay ñu suñu tàkk yi ñu xool karaay ñu xool karaay ñu xool karaay tàkk màgget la ma dama liggéey parce que Serigne Touba lii rek doy na taxawal taxawal karaay ñu xool karaay jëm waaye barke Serigne Bamba wax leen wax leen lii wax leen lii lii lii yéen a tolloo yéen a tolloo kii liggéeyul. bu yàq télé bi laay benn bu ko fi tax. benn benn. nga waaj. waa toog na aywa jërëjëf. léegi xaaral ñu xool forom. léegi toog na gis nañu ko gis nañu ko.